أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala mu toll ci suratul maida ñuy jël tey benn aaya muy aaya juróomeel benn aaya bi nuy jàng ñoo ngi ciy jëlee mbir yi di ñëw sunu kanam mu nekk juróomi mbir yoo xam ne dinañ ko jàng ci benn aaya bi muy aaya juróomeel ci suratul maida bi ci njëkk mooy ibaxatu taam wa zabaih ahlul kitab bokk na ci li ñuy jàng tey sunu téere bi di alquran sunu diine ji di lislaam din ko leeralal din ko jàngal mooy daganal gi yàlla daganal ci ñun ñu lekk ñam ak rendi ñooñu ñuy wax ahlul kitaab te mooy yahud ak nasaraan ci barab yu mel nii ak wàccuwaay yu mel nii bés bu nekk dinañ ci fàttali sunu bopp fàttali ci jaami yàlla yi ne leen ndeke diine islaam du diine barkeelu alxuraan bi du téere barkeelu kese waaye téere bu ñuy dund la ndax daf ñuy wax sunu dund fan lan war a teg sunu tànk nit bu fekkoon ne xel kese la xel kese la ñuy wéye demewuñu li yàlla wax ak yonentam est-ce que ahlul kitaab kon dinañ lekk seen lekk est-ce que bu nu rendee ñun kon danañ ko lekk fekkee xel kese la ñuy demee waaye gis nga nekkee sunu diine orienté bi mu nuy orienté ci wàllu jaamu yàlla waaye ndeke noonu la ñuy orienté ci sunu wàllu dundin sunu jëflante ñun sunu biir waaye ñun ak ñi nga xam ne sax bokkunu diine bokkunu diine waaye ñun ak ñoom ñoo bokk dundin wi noo bokk dëkk bi noo bokk jamono ji bokk waxtu wi comme ñoom ay ahlul kitaab lan gëm nañu yàlla moo tax yàlla daganal ci ñun ñu lekk seen ñam waaye ban lekk lañ war a lekk ci seeni ñam semaine passée yaakaar naa amagul juróomi fan dafa am benn mbokk bu ma woo téléphone mu ne ma dañoo dëkk ak ay chrétien ñu am dëj ñu ñëw àbbuñu bagage yi nga xam ne moom la ñuy yekkee naa bool yi ñuy lekkee kudd yi ñu àbbuñu ko comme ñoom liñ ci yor dafa bari seen yaay daf koy luwe ci xew yi comme ñoom seeni dëkkandoo lañ ñu am dëj ñu ñëw àbb bagage waaye ban mbetteel lañ am bi ñu abalee bagage yi bi bagage yi ñibbisee dafa am ku leen wax ne ñii de seen dëj bi dañoo rayoon mbaam xuux biñ ko toggee ba pare ci bool yi ngeen abale woon bool yooyu lañ ko yekk gis nga léegi nag ndaw si di ma laaj nan la ñuy def bool yooyu nga xam ne yekk nañ ci mbaam xuux lan la ci diine wax kon ndeke est-ce que ñoom bu nu toggee yekk rek yekkal la nga lekk est-ce que bu ñu rendee rek nga lekk kon laaj bi mooy wax ji mooy su fekkee indi lañ la lekk bu méngoog sunu lekk nun ci li ni lekk li daa yàlla daganal ci ñun buñ la ci indilee waxal bismillah nga lekk buñ la indilee lu nu rendi ci yi niy lekk waxal bismillah nga lekk waaye bu la reelee nag ne lii moom daganut yàpp la waaye du yàpp bu dagan comme yàpp mbaam xuux amoo droit lekk ko buñ la indilee beneen façon lekkit boo xam ne lekk bu dagan la waaye dañ cee def lu araam par exemple dañuy wax ne saa yi ñuy togg ñoom lu ñu mun a togg dañ ciy def graisse mbaam commencement comme buñ taalee buñ defee dëwlin ba dëwlin bi sens ñu def ci graisse mbaam souvent ci hôtel yi sax loolu la ñuy def hôtel yi benn plate bi ñuy toggee yàpp mbaam bi moom la ñuy toggee ginaar gi ndax bu ndugalee yàpp mbaam bi saaf nañ ko dindi nañ diwlin bi ginaar gi duggaat lu la ci leer lu mel noonu moom bul ko lekk wala lu la leer ne dañ cee def sàngara bul ko lekk lu la leer ne dañ cee def geresu mbaam xuux bul ko lekk waaw yooyu yëpp benn daganu ci amma bu leeree nag ne lekk yii la yu dagan la su boobaa diine nangu na nga lekk ko kon sunu borom subhanahu wa taala daganal na ci ñun nu lekk ñamu ahlul kitaab ci ñam yi dagan nga xam ne ñun dañ koy lekk ñoom dañ koy lekk ñu daal di koy bokk ak seeni rendi ca ñun ya ñuy lekk ak ñoom ya ñuy lekk mu nekk benn suñ ko rendee indi nga lekk ñaareel mooy ibaahatu nikah alkitaabiyaat dinañ jàng tey aussi yàlla daganal gi mu daganal ci ñun jullit yi ñu takk jigéeni ahlil kitaab yahud wala nasaraan bi shart an takuna xurra afifa وأن يقعد عليها الإقضاء الشرعي وهو القائم على الولي والشهود والمهر والصيغة أي صيغة العقد بأن يقول الخاطب لمن يخطبه من ولي ووكيل زو زوجني فلانة فيقول له قد زوجتكها wax nañ léegi ne takk ahlul kitaab dagan na jigéen joo xam ne chrétien la wala ab yahudiya la dagan na jullit bu góor bi gëm yàlla daal di koy takk sart yi mooy bu njëkk an takuna xurra ndaw si na nekk gor bu mu nekk jaam ñaareel nañu takk sëy bi wa an yaqaada alayha al iqdu sharii nañ ko takkee takk sharia waaw takk bi nga xam ne moom la sharia nangu takk boo xam ne dafay am wali am seede am can am formule bu ñuy takkee ci xam ngeen ne ñeenti mooy arkaanu nikah sëy ci islam ci ñeenti mooy tax mu wér mooy sëy foog wali yuy maye kilifa yi ñaareel mooy sëy bi foog mu am ñu ko seede ñetteel mooy sëy bi foog mu am can ñeenteel mooy sëy bi foog mu am formule bu ñu ko takkee yii ni ma wax nag ñeent yi bu nekk soo ci delluwaatee ci dars yi am na àtteem bu nekk am na àtte kilifa am na àtte seede am nay àtteem can am na àtte formule bi ñuy takkee sëy bi am na nuñ koy defee boobu lay waaj di leeral tuuti ci suuf mu ne misaal kii ñaani ñëw ci kilifa ndaw si walla kiñ ko baayale walla ki ñu jox mbir mi mu ne ko maa ngi lay ñaan diw ah may ma diw mu nekk sama soxna mu ne ko may naa la ko mu nekk sa soxna loolu mooy ñaareelu daganal bi yàlla daganal ci ñu ñu takk kitaabiyaat ñetteel mooy xurmatu nika al mutaa wa nika al xilla wa suxba al xaasa yàlla araamal na ci ñun sëyub yóbbal mooy sëy boobu chia yi di def damay tukki dem France dix jours laa fay am ma daal fay takk jabar dix jours yi maa ngi moom rek ñoo koy yëg après ma ñibbi si fase ko loolu daganul loolu dafa xaram keroog la ko yonent bi araamal moo ko yàpp mbaam sëf ca xaybar wa nikaaxul xilla ak loolu ngeen di wax copinage ah yéen ñaar rek loolu daganut wa suxba wala ànd dañuy ànd voyage rek naa la takk bu ñu yeggee tas mbokk yi loolu dafa araam am na nag lu ci julli di di xewal mooy takku suuf takku suuf keroog gis naa ci facebook bi mu indi benn problème bu rëy ci benn oustaz bu ko tontu gars yi di ko dal dal yi métti métti takk suuf moom ab jullit na ko mooy tëndiku ndax problème yi muy indi moo ëpp njëriñ yi muy def problème yi muy indi moo ëpp njëriñ yi muy def benn day tas sa kër képp ku fi takk jabar am aawo dem takk ñaareel nëbbatu bu ko sa aawo yëgee dem yoonam wala bu demul di nga am semaine boo xam ne moom saa yoo ñëwee bu ñu la deful ataaya wala añoo reeroo doo wax da ngay ñëw rek jubal tëdd waaw suñ ne waa nga ne waa man sama kuddu la jàmm la raaj te xam nga li nga def ñaareel bi mbokk yi imaginer nga xëy ànd akub jigéen kenn xamul salaan la lu nit ñi di la wax ba pare sunna dafa dajji takku suuf ci dalil yu leer nan la ko dajjee ah seede beneen bi ah yonent bi nee na alinu nika siiwal leen ko dem nañ sax ba ne al fasl bayna al xaraami wal xalaal ad duff wa sawt nañ ci dóor tabala pour lan pour mu siiw nañ ci way pour lan pour mu siiw kon yonent bu ne siiwal leen yow nga dem def ci suuf sëy dañ koy siiwal beneen bi mooy yow looy ragal bay tàkk tàkk suuf dama gis ci Facebook bi benn dëkk boo xam ne Pakistan balaa nga fay takk ñaareel dañ lay teg benn doj gis ngeen ko ah gis ngeen ko de ngandum doj lañ lay teg 30 minutes boo atténee doj bi ñu may la ñaareel ma ni lii waroon nañ ko essayer Sénégal ah dañ lay teg ngandum doj doj bi ñaata kilo la ah à part pare en tout cas xam naa ne ñu bëri ñu mel ne man attan de doj doj boobu de doj bi ngante na de waaye loolu yëpp pourtant ndeysaan ñooñu dañuy jéem a wax rek ne dañuy jéem a xoole ndax mën ngaa yemale wala mën ngaa tollale wala mën ngaa wala mën ngaa waaye daal li gën a wër mooy nga ragal yàlla ci booy takk ay soxna kon jarul nëbbatu soo demee bay nëbbatu xam nga ne kii takk di nëbbatu mënul ah benn femme woon na ma ne ma kaay takkal ma takk suuf léegi léegi jëlal taxi dinañ ko fay aller retour ma ne ko ñëwuma ñëwuma de léegi si bi ñu ustaas a ko takkoon xëy du ma ko def waaw léegi boo bu ñu la takkee te danger bi yëpp ci jigéen gi la gën a nekk takk nañ la takk suuf kenn yëgu ko nga xëy ak sa kollu nekk taj daal di biir lu ñuy wax ah ah est-ce que mën nga ko weddi nga ne dama am jëkkër ñu naan am sa jëkkër fan lañ ko takkee ku ko fekke ana seede yi ana can bi nga naan takk suuf yooyu daal mbokk yi dafa jara mooy tëndiku waaw kon araam na sëyu yóbbal dafa araam sëyu àndandoo daa araam sëy bu ñuy nëbb di ko làq daganut mbokk jullit yi loolu dafa bokk ci li ñuy jàng tey ci sunu dars beneen bi mooy almas almaasi qad taqudu ila al kufru danañ jàng tey bàkkaar yu bari jullit su moytuwul bàkkaar yu bari bàkkaar yooyu mun na koo wommat di ko xëcc di ko xëcc ba mu egg ci kéeféer bàkkaar yu bari baaxul bàkkaar yi dalay jàpp di la wommat ngay xëtt di dem di bàkkaar di xëtt di dem bunt bu nekk nga ubbi ko place bu nekk nga dem bàkkaar bu nekk nga def ko fu mu lay jëmee mooy ci weddi yàlla tabaraka wa taala la lay jëmee kon nañu moytandiku bàkkaar yi bàkkaar bu mu mën a doon ab julit na koy moytandiku bu ma wax ne bii bu ndaw la wala bii bu mag la bàkkaay bàkkaar bi la nar a alag nar laa dugal safara xamoo ko kon moytandikul yépp bi ci tegu mooy al murtaddu anil islaam yuxbitu amala képp ku murtad ci islaam jëfam yépp yàqu na ku murtad lan mooy murtad mooy génn ci lislaam toog ba mu neex la nga ni ah daal génn naa ci diine ji ma sonn ci yow fajar tàyyi naa murtad nga waaw génn nga ci islaam tamaman beneen bi mooy jëf yi nga defoon yépp yàqu na sippeeku na ku mel noonu falaw raaja al islaam laa yusaabu ala ma faalahu soo dellu soité ci lislaam la nga defoon kenn du la ko fay soo deewee avant ngay tuub safara nga jëm waaw sa jëf yëpp yi nga defoon perte nga ko mu ne wa in maata su waa ji deewee qabla al awdati ilal islaami balaa muy dellu siwaat ci islaam mu dee dafa murtat tey dee suba dellu siwaatut xasira nafsahu wa ahlahu yowma alqiyaama perte na boppam perte na njabootam wa zalika huwa alxusraanu almubin loolu nag mooy perte kon murtad ku murtad ku génn islaam moo xam lan moo la ci génne moo xam wax la moo xam jëf la moo xam moo xam saa yoo génnee ci lislaam li lay arrangé waat mooy nga tuub duggaat waaw bi nga génnee bi nga ne génn naa yàqule nga lépp loo defoon soo tuubee baax na nga ñëwaat waaye la nga passé dootul amat dootoo ci am tiyaaba da ngay commencé waat à zéro su fekkee yéex ngaa ñëw ba dee perte nga même jëf ya nga ko jëfoon bu njëkk sax perte nga ko perte nga sa bopp te loolu mooy perte nag ëllëg yow mal xiyaam kon doomu ndey mbokki jullit yi bu fekkee dañ koy gàttal ci tënk sunu benn aaya bi lii la ëmb nu ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامكم هل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن أجورهن محسنين غير مصافهين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط أمله فقد حبط أمله وهو في الآخرة من الخاسرين sunu borom ne alyawma tey tey fan fii ci jabalu Arafa fi nga xamante ne la aaya bi wàcc alyawma akmaltu lakum diinakum fii tey ñu leen daganalee lekk yii fi haza al yawmi allazi akmala allahu taala lakum fihi diin bés bi nga xam ne ci leen leen yàlla matale diine ci la leen yàlla subhaanahu wa taala daganal li ngeen ko laaj ci benn bis bi la yàlla subhaanahu wa taala dagale la ci yéen seen ñam ak ñamu ahlul kitaab min qablikum wa hum alyahud wa nasara xaasa fa taamuhum ay zabaihum xillun lakum seeni ñam ak seeni rendi yi nga xam ne yéen a ko bokk ci li ngeen di lekk xar nag béy ginaar yu demee noonu nga xam ne yéen a ko bokk dagan na ci yéen ak firwi yeeg ceeb yeeg ataaya yeeg ni ngeen ko xamee lépp lu nga xam ne sunu diine dagal na ko daganal nañu ko ci sunu lekk ñun ak ñoom ñu bokk ko di ko lekk loolu ñoom buñ la ko indilee dagan na nga lekk ci ah al yawma tey yàlla nee na subhanahu wa taala uhilla lakum daganal nañ leen lan lañ leen daganal lan lekku ñan ahlul kitaab seen ñam dagan na ci ñun atayibaat ba baat bi xam ngeen ne jàngoon nañ ko fee ci kaw uhilla lakum tayibaat waxoon nañ bi passé tayibaat mooy lan kon du jar dellu siwaat comme ni ngeen ko xamee ma azana allahu taala fi aklihi mooy lépp lu nga xam ne yàlla subhanahu wa taala daganal na ci ñun ñu lekk ko wa abahahu li ibadihi almuminin mu daganal nal ko way jullit yi gëm yàlla loolu mbokk yi dagan na mu ne wa taamu alladina utul kitaab ak ñamu ñi nga xam ne dañ leen joxoon ay téere muy yahud ak nasaraan ahlul kitaab mooy al yahud wa nasaraan wa nasara seen seen ñam dagan na ci ñun yàlla mu ne wa taamu alladina ak ñamu ñi nga xam ne uutul kitaaba ay boromi téere lañ xillun lakum dagan na ci yéen mu des nag mu des contrôle rek comme yàlla daganal na ko ñu vigilant ci loolu xool ndax kat nga bañ a gëmm rek diw de yàlla daganal na lekk yi may jox naa lekk déet bu ñëwee war nga vérifier comme yàpp la xoolal ndax du yàpp mbaam xuux xoolal ndax comme naan la xoolal ndax naan bu dagan la wala lekk la xoolal ndax bu dagan la bu daganee nga tudd tur yàlla daal di lekk wa taamukum hillun lahum yéen it seen lekk dagan na ci ñoom ni seen lekk ñoom dagane ci ñun ñun tamit suñu lekk noonu la ko yàlla subhanahu wa taala dagane la ci ñoom gis nga islam pourtant yàlla mënoon na wax ne ñoom seen lekk dagan na ci yéen rek noppi lu tax mu ne ñoom sunu diine concerné wu leen déedéet waaye gis nga sunu borom dafay régler ci sunu mbirum dund sunuy jëflante parce que tey nga am dëkkandoo boo xam ne su la yàkkalee nga lekk ah sooy àbbi bagage àbb ko tey am na ku ma woo téléphone ne ma dañoo am dëkkandoo bu faatu waaye chrétien la est-ce que mun naa ànd ak moom ci rob bi ma ne ko déedéet mu ne ma waaye waa ji de dafa am ay doomi jullit dañoo tuub ndax ñooñu mën nañoo dem ko déedéet jullit du dugg ci ay armeel jullit du gunge néew bu dul jullit di nga jaale ji nag dem ca kër ga bu dee ay olof lañ nga leen siggi leen ndigaale ah de dégg nañ ko nga leen siggi leen ndigaale wala làkk wi ñu dégg nga leen siggi leen ndigaale àdduna de nii la ku dund dee waaw yal na ko yàlla fay ay jëfam foofu nga yem de waaye yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla dugal aljana loolu sa yoon nekk ci kenn waxu la nga wax loolu fi la charia yem loo yem loof demal nga jaale ci parce que ñoo bokk dëkk bi ñoo bokk dund gi yéen a bokk koñ doo dem ci armeel ya nag doo ko ñaanal yërmande yàlla tabaraka wa taala waaye mën nga koo jaale ji ne siggi leen digaale siggi leen digaale lu muy tekki jeex na lii dañ koo bokk rek jeex na xam nga lu amul ñaan waaye nekk fa am na ci jullit yoo xam ne nag léeg-léeg nga gis ci ëppal ak débordement boo xam ne ak ay seede yoo xam ne kenn seede lawu leen waaye bëgg rek bëgg lu leen neex ku fi bëgg lu neex nit nag ba dem ci yàlla di nga ko réccu nit daal day yem fu fuñ ko yemloo waaw nit jullit fi la yàlla yemloo ngay yem waaye bëgg lu neex say dëkkandoo wala nangam ak nangam wala nangam ak nangam ba nga dem wax fa loo war ta wax ëllëg yaag yàlla la jullit du taxaw ci ay armée lu yéeféer du leen ñaanal yërmande du leen ñaanal jéggal même dañ la ne boo leen di nuyu sax waxal na ngeen def jàmm ngeen fanaan bu dee suba la bu dee ngoon jàmm ngeen yendoo na ngeen yendoo ana waa kër gi ñu ngi fi waaye baatab assalaamu aleykum wa rahmatullah dañ la tere nga wax leen ko ñoom buñ la ko waxee comme jamono bi ni mu doxee noonu yàlla assalaamu aleykum nga ne ko wa aleyk wala loolu lan la sant mbokk yi diine ji duñ ko làmbatu diine ji dafa am lu ñu jàngal am dundin wu mu bëgg nu dundeeku am lu ñu sant am lu ñu tere am lu ñu defloo am lu ñu bàyyiloo am fu ñu yemloo yàlla nee na al yawma tey uxilla lakum laa leen daganal a tayibaat yi dagan yi tey wa taamu ak ñam allazina gaa ñi nga xam ne utul kitaaba dañoo wàcce woon ci ñoom ay téere mu yahudi ak nasaraan yi hillun lakum yàlla ne dagan na ci yéen wa taamukum yéen it seen ñam hillun lahum dagan na ci ñoom kon lekk bi dagan na yàlla waxaat leneen mu ne wal muxsanaatu min al mu'minaat ak ñi sangewu ñi ndeysaan jigéen ñu sangewu ñi jigéen ñu fegu ñi jigéen ñu baax ñooñu nga xam ne dañoo gëm yàlla balaa nga leen fii romb di dem feneen naan da ngay uti leneen yàlla kii la la takkaloo ba pare al muxsanaat ah jeex na wal muxsanaatu min al mu'minaat bis bu nekk da ngay xool première catégorie loolu ñun nangu nañ ko ci lépp ba mu des jaamu yàlla sénégalais yi nangu nañ première catégorie ci lépp ba mu des jaamu yàlla jaamu yàlla moom da nga naan garaawul def naa ko rek baax na jàkka ji dugg naa ci rek waaye jàkka ji am na ñëpp tiyaaba ñan ñëpp tiyaaba mooy ñi njëkk ñëw ñu nekk sàppe première sàppe ñi nekk saful awal ñëpp tiyaaba ah takk soxna baax na trop waaye ban soxna lañ la takkloo wala yàlla mu wax fi al mu'minaat bu gëm yàlla soxna su gëm yàlla jàngeen baqara yàlla mu ne wala tunkihul mushrikaati hatta yu'minna mu ne wala amatun mu'minatun xayrun min mushrika walaw ajabatkum bu leen takk jigéen juy bokkaale yàlla du hasard yàlla di la tere jigéen juy bokkaale ku bokkaale yàlla nga defen du la bokkaale yàlla mu màgg mi ku ko ragalul ba koy dendale keneen di ko bokkaale billaahi jigéen ju bokkaale yàlla bokkaale borom këram ak keneen waaye góor guy bokkaale tamit noonu la loolu mooy mbiram ni ko yàlla teree jigéen ñi la ko teree góor ñi yàlla bi mu nee jigéen ñi bu leen ku bokkaale takk yéen góor ñi bu leen takk bokkaalekat yi gis nga fii bi yàlla ne maa ngi daganal ci yéen ahlul kitaab mais balaa mu la wax ahlul kitaab lan la la wax ba pare mooy al muhsanaat al mu'minaat jigéen ñu sengewu ñi ñi fegu wa hiya al afifa al xurra min an nisa booy takk jigéenub jullit tànnal ci moom dañ laa tànnaloo ay critère ah yàlla nee na takkal jigéen ju fegu takkal jigéen joo xam ne gor la bul takk jaam takkal gor takkal ku fegu loolu mooy al muhsanaat min al mu'minaat mu ne wal muhsanaatu min alladina utul kitaab ak jigéen ñi nga xam ne dañoo fegu bokk ci ahlul kitaab mbokk yi est ce que gaa ñi tey ñi ñuy takk ci ahlul kitaab dañoo fegu ah dama leen di laaj waa ji danaan cëpp aéroport rek gis benn jigéen langal ko ko wala dem ci benn fast food wala benn dancing wala benn rek trois mois mu ñibbi si Sénégal ànd ak ab xale bu jigéen sama jabar la xam nga ne kooku bu fegu woon ñi fegu ñi Sénégal gii rek bala nga fee gis jigéen ju baax ju fegu da ngay wër ba sonn di ngay gis waa ji bëgg tagg jabar tët tët wër naa bi bëgg dee waaw wow nga nekk Sénégal di wër lu baax amoo ko nga dem lu France am am lu baax te yow xamoo France démb nga fa ñëw tontu leen ma démb nga ñëw France weer nga fa am bëgg bëgg fa am jabar ju baax ju fegu suñu waxee nga ne yàlla daganal na ma ko mais yàlla daf laa wax lan la la wax waxu la nga gën takk n'importe qui aaya bi lan la wax wal muhsanaat ak jigéen ñi fegu min allazina utul kitaab balaa ngay wax utul kitaab la bokk ba pare am na benn critère bu la yàlla tànnuloo mooy lan mooy ndaw si est ce que fegu na boo bëggee xam ndaw si fegu na nag xoolal ndax balaa nga koy takk ndax amu leen fu ngeen jaar ah balaa nga koy takk ndax génnu leen li waa ji defoon génn ak benn xale bu jigéen ndeysaan ne ko dama lay takk da ngay tuub di ko indil ay téere xale bi di liir xale bu jigéen tubaab di liir di liir di liir di liir di liir ba benn bis xale bu jigéen bi ne ko damay tuub parce que vraiment diine bi convaincre na ma mu yóbbu ko centre islamique bi xale bu jigéen bi tuub ba pare daan ne may leen ma jëkkër ñu ne ko ah waa ji ne ah looy wax ni mu ne waaw damay wut jëkkër ju baax ju gëm li ma gëm parce que yow xam nga ne diine ji li muy wax xam nga ne yow mii defoo ko xam nga ne yow diine bi li muy jàngale yow mi ku mel ne yow du loolu la islaam wax kon may leen ma jëkkër waa ji noonu la ñàkkee ndaw soosu parce que xam ngeen ne fa mu jaar ak ndaw si ba ndaw si di ko seedeel nekkul fu baax loolu nag bu dee yahud ya koy def ak nasaraan yi waxuma la ak ñun tey jullit ñi daanaka tey néew na ku fi takk jabar boo xam ne amu leen fu ngeen jaar ba pare nga doog ko takk yal nañu yàlla yërëm yàlla bu nu yàlla jàppee suñuy jëf kon yàlla dana jigéen ju fegu ju gëm yàlla min allazina ci ñi nga xam ne uutul kitaab dañ leen joxoon i téere min qablikum ñi leen fi jiitu woon te mooy ñooñu ñu wax mooy yahudi ak nasaraan yi waaye bi sart lan mooy sart bi iza aataytumuhunna ujurahunna bu ngeen leen joxee seen can seen can can ñëw na ci alxuraan yàlla di ko tuddee ay façon am na fa ko yàlla tuddee ah am na fa ko yàlla tuddee sadaq am na fa ko yàlla tuddee mahar am na fu mu tudd nihla fii ujurahunna iza ataytumuhunna ujurahunna bu ngeen leen joxee seen can mahruhunna wa sadaqatuhunna bu ngeen leen joxee seen can mbokk yi can ñaata lay toll can ci lislaam ñaata la amul limite mën na bëri lool lenn saa yi nga dégg benn waaye bu may un million gars yi bind ko ci journaux yi së tët tët tët mais kii dafa dof daful dara lim def dagan na yenn saa yi nga gis aussi ku joxe 3500 gars yi la mais kii yéen lay déet dagan na si waaye li gën nag ci ñaari can yooyu xayrul umuri awsatuha yonent bi nee na bi gën mooy bi bi bi gën a oyof waaw ba mu ëpp barke Omar xutba na ci biir jumaa ji am na ñuy weddi wax ci xutba ci digg jumaa ji ne canu jigéen ñi dafa cher dañ koy wàññi leen di wan ne jigéen ñi dañ daan julli ci jàkka yonent bi ah góor ñi nekk ci kanam jigéen ña nekk ca ginnaaw Omar taxaw di xutba daan ne can yi dafa cher dañ koy wàññi benn jigéen taxaw ne ko yàlla ne neex la nga bu koo wàññi xintaar yàlla ne xintaar nga bu koo wàññi yow Omar yàlla xintaar la wax nga bu koo wàññi Omar ne ndaw si wax na dëgg yàlla xintaar la wax bu ngeen joxee jigéen xintaar amu leen droit wàññi ko xintaar mooy lan mooy bagaanu urus mooy ndaal yu ngand yooyu nga def ci xaalis ba mu fees wala urus nga jox ko jigéen can loolu ñaata la ku ko defoon tey ay ay euro ba mu fees wala nga def ko ay billet dollar ñaata la ah kon ay million la beneen bi mooy yonent yàlla Moussa sàmm na ñaata at la sàmm pour ñu may ko jabar ah mu ne ko boo ko matalee fa in at mam taxaasara léegi nag nañ calculer fukki at ku ko saamu weer cent mille francs pour ñu may la jabar ñaata la at lëmm weer cent mille weer bu dee cent mille at lëmm après ñu may la jabar ñaata la xaalis bi ah un million at bu dee deux cent mille fukki at la kon Moussa pour ñu may ko jabar lu mu daj ah ah wala du loolu gars yi loolu la alxuraan wax déet dama leen di laaj du loolu la alxuraan wax alxuraan a ko wax di mu ngoog léegi nag man maa ko calculer cent mille ca jamono yooyu Moussa cent mille ñaata la waroon nekk xam ngeen fii tey ku fi kuñ fi jël salaire normalement minimum cent mille soixante quinze mille lu mu yemamaay soixante quinze mille cent mille francs yu mu yu mu yamamaay dee dee benn waaye ne la kaay xoolal gis nga danga may sàmmal xar yi gis nga leen trois mille xar la trois ah boo xëyee dugal leen ci àll bi ngay biwaat salaire bi vingt cinq mille la looy wax w da nga tof xanaa yow la nga xoolal cent mille bu ma ko xar yi nañ bëree gisoo li ngay wax gis nga xam nga doo ko nangu vingt cinq mille doo ko nangu cinquante mille doo ko nangu soixante mille kon léegi boo ko calculer diggante cent mille ba soixante quinze mille fukki at nga koy dajale ne après ñu may la jabar kon bu leen wax can nangam ak nangam këtt këtt lu waay joxe daal fal yunfiq zu saatin ku nekk ni nga ko mënee na nga ko joxee noonu fal yunfiq zu saatin min saati wa man qudira alayhi rizqu fal yunfiq mimma aataahu llah la yukallifu llahu nafsan ay dañoo leer nañ dañoo tegaloo leer nañ mel na midi dara lëndëmu fi ki am waroo nekk milliardaire sa waaye ñu ne dañ lay may jabar nit ñi dem ci xew bi ku nekk ñibbisi naan man dama xiif c'est pas normal abdourahman ibnu awf keroog bi muy takk jabar lu ko yonent bi wax aw lim walaw ça parce que milliardaire la woon abdourahman ibnu awf ci millionnaire u madina la bokkoon ñëpp alal madina ci abd abdourahman ibnu awf ci la bokkoon moom dong la yor yonent bi permettre oon mu sol mbubbu soie mbubbu soie ah yonent bi daf ko mayoon yéen nag abdourahman gis naa la ngay dugg aljanna de waaye da ngay raam de di watatu mu ne ha waaw ah waaye day bi ñu amee deux mois trois mois yonent bi ne ko dama la gis ngay dugg aljana di waaxu waaxu yoo xam ne mu ne looloo wóor pourtant mbokk yi dugg aljana sax di bërëngu baax na waaw même buñ lay bumax sax waaye xoolal kooku ñu wax ko loolu mu xeeb loolu allahu akbar yée allahu akbar borom bi nee na isa aataytumuhunna bu ngeen leen joxee ujurahunna seen can muhsiniina nag gayra musaafihin na ngeen def can bi ba mat gayra musaafihin mujahirina bi zina bu leen nekk ñoo xam ne da ngeen di feeñal mooy yàlla waaw kenn du feeñal mooy yàlla ci jigéen di ngay takk muhsinina na ngeen sangewu gayra musaafihin bu leen nekk ñuy njaaloo xale yu jigéen yi booy dañuy génn génn di fu ngeen jëm booy kii laay génnal quoi ku la wax nga génnal moom am fit ñëw di présenté xale bi laay génnal kan moo la jox ndigal ngeen génn ak bu ngeen génnee fu ngeen jëm lu ngeen di defi ah loolu daa araam génn dafa araam de beneen bi mooy di labat jigéen cinq ans dix ans waaw ndaw si ko ne asalaam non bay dafa am ko dafa am ku fi nekk de ku fi nekkal la dix ans wulan benn xale buy def cinquième ah collège mus na ma wax ne kii diw moo may labat ma ne koy di ngeen a rep yéen ñaar di ngeen a rep cinquième collège nga ne labat yéen jàngu leen seen njàng naan labat fu ngeen jëm bu kañ ngeen di am bac kañ ngeen di kañ ngeen di sëy ma ne ko loolu banditisme la ci la ma xale bu jigéen ba meree ba léegi du ma nuyu waaye man dama ko doon laay laay bi di ko wax dëgg rek xam ngeen ne yéen ñii li ngeen dégg xam ngeen ne yéenwul maanaa waaw waaw yooyu ja yooyu ay mbir la yoo xam ne yàlla da koy bañ beneen mooy balaa ngay labat pareel suñ la nee bismillah nga dem waaye labatu juróomi at labatu fukki at labatu ñaar fukki at ah labat ba ngeen di nekk collège ba ba ngeen di dem université ba ba ngeen di jeexal ah ngeen ne mënu leen fee wax lu dul raganut ngeen ne mënu leen fee xoolante bët bët kii ah ngeen ne mënu leen fee mënu leen fee loolu tamit nañ ko xoolaat mbokk julli ci sunu borom dane gayra musaafihin bu ñu nekk ñoo xam ne dañuy njaaloo bët nag dana njaaloo gémmiñ dana njaaloo ay nopp dana njaaloo loxo dina njaaloo tànk dina njaaloo awra bi moo koy dëggal yii yëpp seen njaaloo yonent bi wax na ko ban mooy bu mag bi nag ba mu am ñu ne am na mooy awra bi nag ah su ñaari awra yi laalantee rek njaaloo ba nag sotti na nag dëggu na nag léegi sunu borom nee na subhanahu wa taala iza aataytumuhunna bu ngeen leen joxe ujurahunna seen can muhsiniina ngeen nekk ñu sangewu ñu aaru ñu fegu gayra musaafihin ngeen bañ a nekk ñuy njaaloog ñoom wala muttaxisi axdaan bu leen jàpp ay farantu wala muttaxisi bu leen jàpp axdaanin wa huwa alxalil mooy copinage sama copain la quoi sama copine la islam amul copain ak copine islam amul farantu amul ci islam far ah ki ngeen di ànd di génn nga xam ne waa ji sax day am fit ñëw seen kër samedi bu nekk mu ñëw fa yàgg fa guddee fa ba bu ngeen nekkoon ci benn néeg di naan ataaya wala ngeen di reer paa bi bu soxlaa néeg bi danaan mooy bàyyi li ngeen def maa ngi ñëw ah da ngeen bëgg a weddi li may wax ah li ma xam ne ma la amul nga gis waa ji jóge seen kër ñëw kër jàmbur dugg ci benn néeg moo xale bu jigéen bi ñu nekk fa néeg boobu ko fa bëgg a dugg nooy def wala nga fëgg loolu mooy lan mooy bàyyi li ngeen def maa ngi ñëw te loolu am suñu kër yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa yaxluwanna rajulu bi imraa illa kaana saalisahuma shaytaan golo ci wetu garab yéeg ba pare rek wala muy bëgg a yéeg ngeen defe ne ñaar ñu nobante bëggante ah ku nekk xiif sa morom ñu nekk kii néeg affaire bi ne tekk lu fa xew sunna amu fa de ñu ñaar ay sunnit la ñooy amu foofu denc leen ko fële laa wax foofu sunna yeggu fa waaw ah ñu wàcce ko rido jigéen ak góor bu nekkee ci néeg kenn waru wàcce rido bu ñu sëy waaw te loolu dafa jaram mooy tëddi ko seytaan moo lay moo lay piéger loolu di la piéger di la piéger ba bis mu dugal la ci garaawaali dugal la ci kàmbu jahannama boo xam ne boo ci duggee yërmande yàlla moo la fay génne yal nañu yàlla aar sàmmal nu boppam ixwaani yàlla nee na wala mu taxisi axdaan góor ak jigéen buñ jàppante ay far ay xarit sama xarit la sama xarit la sama xarit la ba bis ñëw musiba am waaw xarit góor ak jigéen sëy rek waaw tey nag moom am na yoo xam ne boo ko fi wax sax dañ naan kii fu mu ne waaw kii moom ci ban monde la nekk waaw kii moom fu muy waxee nii kañ la fi ñëw ki xanaa wàcc bees la du ñu ay wàcc bees de li yàlla wax la ñuy wax waaw te xam nañ dëkk bi li fi xew li yàlla wax la ñuy wax yàlla moo ko araamal mbokk yi kenn bu mu fi jéem a nand nandulu di muus muuslu ba dugg ci giraawaali goo xamante ne xam nga li ci fekk du hasard yàlla dañ tere wéet góor ak jigéen góor du nekk góor du nekk waliyu ci kanamu jigéen doo fi nekk ab yonent ci kanamu jigéen doo fi nekk ab borom bu yeboo nga nekk fi ab xaafisu quran bu yeboo nga mën a julli bu yeboo nga mën a naafila bis boo fi wéeteeg jigéen joo nopp teg ko loxo seytaane moo la yonent bi moo ko wax seytaane inna seytaan tajri ala ibnu aadam majara dam seytaane mooy dugg ci yow dugg ci moom ñi ñi ngi may nettali benn histoire bu yéeme bu doy waar boo xam ne mu ngi xew fa mu xew nag nañ ko bàyyee noonu foofu la xew benn waaw foofu la xewee benn waay ndeysaan bu doon jàngal ay xale jigéen cours de soir ci benn dëkk ci benn gox day teel a ñëw effacer tableau bi bind dars bé dars diine benn bis mu ñëw di bind dars bi mu taxaw di bind rek ndeke am na benn xale bu jigéen bu ko bëgg ci xale jigéen yi yàggu koo kar rek xamul nu muy def waaw da ngay dégg xale jigéen ci Sénégal gis nga kii dinaa ko gasal kàmb laa la wax kii te bu ma ko gasalee dina dina daanu laa la wax ii kon nag mooy tandiku rek waaw waa ji ñëw di bind rek fi mu taxaw yëkkati loxo bi def nii rek xale bu jigéen bi ñëw sës ko ket rek daal di koy kott bi mu ne kii kan la ko xale bu jigéen bi jàpp rek mu ne kii kan la xale bu jigéen bi jàpp ah imagine dafa doon fippu daw yomb na de xale bu jigéen bi sës ko rek fu waa ji mujj bàyyi li muy bind teg kere ya teg éponge bi tëj bunt ba waaw mu indi nag après fitna bu rëy ca dëkk boobu parce que après ndaw si dafa am te kan moo kan moo indi problème bi mooy xale bu jigéen bi gis nga pourtant waa ji bëgg ko woon sax mais xale bu jigéen bi moo ko topp bëggu ah waaw dégg nga ñu ne jigéen bu rëbbee du sooy très bien kon gis nga yooyu yëpp musiba la yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo nu xam ala yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla moo nu xam moo nu bind moo tax mu bëgg pour nu fegu mu ne nan sëy du hasard yàlla di daganal ci yow ahlul kitaab parce que yaa ngi ci àll bi gisoo jullit ah gisoo ko gëm yàlla au lieu nga nekk fa di njaal yàlla mu ne utal ahlul kitaab nga takk bu baax nag ahlul kitaab bu baax nga takk ndax nga mun a fegu gis nga yàlla ci biir dëkk bi nga nekk mu ne acca sëy yombal leen leen sëy yi pour nit ñi mën a fegu kon suñu borom moo nu xam parce que dafa am xarisa bu nekk ci nit nekk ci góor nekk ci jigéen te nag ci jigéen la ëpp jàng leen ñaari aaya yàlla bu muy wax sàcc lu mu lu mu tàmbalee aaya bi waa saariq wasaari saariqatu
wasaariqu ba mu demee ci ji- ci njaalo lu mu wax azaniyatu wala sàcc kattan la ak doole pouvoir yàlla góor la jiital njaaloo kan la jiital jigéen jigéen parce que jigéen moo ëpp bànneex ci mbir bi moo tax gis nga dëkk bu baax bu yar ay jigéenam dëkk ba mucc dëkk bu boyal ay jigéenam def leen comme Sénégal xale yu jigéen yi nekk ci mbedd yi mel ne ay bañ sax tane na bañ sax leen ëpp njëriñ ah lambaar lambaar yi nekk ci mbedd yi génne seen yaram yi génne seen awra yi dum las ngeen xamul fuñ jëm yàlla rek moo nuy musal yàlla day tere loolu ngeen di wax copinage ax daan mu ne waman yakfur képp ku weddi bil imaani ngëm képp ku murtad képp ku nekk jullit nga xëy génn ci islaam faqad xabita yàqu na amaluhu ay jëfam yépp sëppeeku na waaw képp koo xam ne da nga nekk ci islaam ba mu neex la nga ni génn naa ci pare nga sa jëf yi nga jëfoon yëpp terminé lépp loo mos a julli yàqu na waa aji woon maaka junni yoon tamit yàqu na te boo dee safar nga jëm parce que da ngaa murtad ku murtad ci islaam mbokk yi lan mooy atteem jaasi man baddala diinuhu faqtulu ku bàyyi islaam rey leen ko mos naa seeti benn xale bu jigéen bu murtad li tax mu murtad nag sabab bi mooy jinne yi ñoo ko dugg xale yi xale bu jigéen bi jinne yi dugg ko rek mu jëm église u parcelle bi daal di dindi kaalam sànni daal di nekk ak catholique waaw ma dem seen kër di waxtaan ak param papaam ak yaayam papaam li ma li ma am mbetteel mooy papaam ne ma non garaawul de affaire bi moom sax mesure na de pourtant bu wéroon sax su ko neexee mu def ko parce que mesure na mooy tànnal boppam religion bu ko neex ma ne ko abon mu ne ma waaw ma ne ko alhamdulillah kon ba mu feebaree feebar bi def loo ko ko waaye bu doon dëkk bi charia moo fiy dox ku murtad dañ koy rey est-ce que xam nga loolu mooy àtte l'islam ku murtad dañ ko war a rey mu ne ah bon de la façon da nga ndeke tubaab yu ndaw yooyu la borom bi nee na waman yakfur ku weddi bil imaani ngëm génn ci islaam tamaman daal di murtad kooku de faqad habita batala kullu ma qaddamahu min alsalihat faqad batala yàqu na kullu ma qaddamahu lépp lu mu defoon min alsalihat ci yëf yu baax fala yusaabu alayhi dootul am tiyaaba yàlla dootu ko fay faqad habita sippeeku na amaluhu jëfam wa huwa moom fi l axirati ëllëg alaxira yàlla nee na min alxaasirina ci ñi perte la bokk Hmm? kon nañ def attention de yenn saa yi nit dana génn ci lislaam te du ko tey lu tax parce que dafay def nawaqidul islaam nawaqidul islaam ñaata la fukk la boo ci defee benn génn nga ci islaam moo tax jar na xam nawaqidul islaam normalement kenn ku nekk da nga ko waroon bind boo jàngee arab boo jàngee français nga bind ko boo jàngee anglais nga bind ko nga def ko ci sa bopp lal booy tëdd mujjee koo gis waaye wa njëkk koo gis ndax nga mooy tëndik ni mu amee lu yàq njàpp am lu yàq julli am lu yàq aj noonu la amee lu yàq islaam nit day jàpp ba pare war a julli njàppam yàqu lu muy def jàppiwaat yeesaliwaat nit day julli ba pare julleem yàqu lu muy def julliwaat waa noonu la nit islaamam di yàqoo sa islaam bu yàqoo nag li koy baaxalaat mooy lan tuub rek kon mbir yi yàq lislaam nit war na ko xam soo ko xamee nga moyta ndikku waaye moyta ndikuloo ko képp koo xam ne xam nga ko tey nag ci sunu dund nawaqidul islaam daanaka bis bu nekk nga gis muy détruire ay nit bis bu nekk nga dégg wala nga gis nit ñi di jëf wala ñuy wax wala ñuy def lu leen génnee ci lislaam guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg ñenn ñi yaa ngi ñoom yéen a dëkk ñenn ñi say mbokk lañ ñenn ñi say dëkkandoo lañ ñenn ñi say xarit lañ ñenn ñi say am di jàmm la ñenn ñi yéen a bokk dëkk bi ñenn ñi ci rajo yeeg télé yeeg tul tout xew-xew yu diine yi ngay dégg ak kufru gu metti goo xam ne sa yaram day daw bokkaale goo xam ne ñii ñëpp mbir mi ku ko def rek pare nga génn nga ci lislaam tamaaman yàlla nag nee na képp ku génn ci lislaam képp ku murtad sa jëf yàqu na ëllëg alaaxira wa fi alaaxirati min alxaasirin te ku yàlla ne perte nga wallahi perte nga da ngeen jàpp ne lii waxan yàlla dafay waxan ku def lii ba pare yàlla mu ne perte nga ñu ne non non garaawul sëñ baa nga fa dama ñëw dina ko réglé baax na baax na ba ëllëg mbokk yi yii dafa jara leeral dafa jara dañ ko war a jara xam képp koo xam ne ci ñun sa tànk tegu woon na ci lii nga teggi ko ndax kat képp ku dee fekk bi ngay dee da ngaa génn ci lislaam yëgal ne sa àllaaxira sa àdduna yàqu na waaye sa àllaaxira yàqu na kon lii mooy sunu darsu tey ñoo ngi jéggalu sunu borom njumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu boo amee ay laaj incha allah